nañu jàngi nañu jàngi nañu jàngi suñu diine ndax ñu raw fii ni ak fee ñu jëm nañu jàngi nañu jàngi nañu jàngi bii waxal ñoom sa doom ji waxal ak waa waa alxuraan u sasani sànni mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi jégalu ci nu kàddu yu nar a demee maa ngi jégalu ci ni kàddu bi nar a demee ndax daawu ko demee waaye ni mu demee tey mënut a ñàkk a demee noonu juróom fukki ak juróom-ñett a ngi nii réew mi di Sénégal di bokk ci ay jongante ñu amee indépendance ba tey àdduna am lu ñuy xëccoo lu ñuy tuddee coupe du monde ñële xam nañ ci dara entraîneur bu dul entraîneur am nañ ko ci réew mi bu ñu compter liñ ci def pour jël coupe du monde c'est des benn am na dem final bu dee basket benn yoon lañ mas a am victoire di ko feete muy bërki dem ba mbaay bi gën a jigéen ñi demee di basket bi am fa victoire ñu koy feete ndeke fi ñu doon dóor du foofu fii la fii la soxna may mun naan ñu ko jiitu dem ci turu réew keroog bi ñu ne pàcc na ko dalal ca lan faal suñu xolo du ñun ñépp avant muy noppi gaa yi ut téere bi ubbaat ko ne ko dalal ca am kabul ndeke fi ñu nekkoon du foofu fii la nañu fi nekk nag te bu ñu fi jógeeti soxna Maymuna tey jii de wa innahu la zikrun laka wa li xawmika laay jifir na boppam xaw ma ana ajar Binta ndek suñ entraîneur yi doon jox xaalis mënuñu dara boo laajee gone yi lu gone yëngutu yëngutu yëngutu boo yendoo ca daara ji ne dégg ndax dégg gi Adja Binta Jaw ne dégg xam naa Marième Faye Sall la wax première dame waaye xanaa ma yëm foofu rek ngeen xam loo bëgg a wax man de mos naa daara jën ndax sama taaw fa la duggoon li may wax ni Mbàkke gëm dëkkoon ku dan sabar lu te wóoxoo ko da ngay defe lu dox ma gàddu ko ko ajaay bint mu nga soppari mag daaraam ajaay binta gàcc nga la ma nun ñépp la amal njukkal su ma mënoon a way tey way la soo mën a tagg tey tagg la soxna may mën a tey bu fekkoon sa maam maam jaara wala mu fekk fi sa maam Fawade Wele wala mu fekk sa maam Cheikh El Hadj Malick Sy wala fekk fi sa maam maam Serigne Touba kon de saal bi du demee nii. ba ñu waaxoo fee wut si la lu ne am ci or la ko laa kon doo jot ay de lu ñu am ci koor tey danga ko takk kon ngeen baal ma yemale fi kàddu gi foofu li ma bëgg a wax xam ngeen ko yal na la yàlla aar sigal nga nun ñëpp ku ne ci daara sigal nga tey tax na bu ñu fi jógee ñëpp bëgg daara ndax yow yàlla xam na ko yal na la yàlla fay nañu jàngi nañu jàngi nañu ndax ñu raw fii yu jëm nañu jàngi nañu jàngi nañu jàngi